Papa Abou Camara président conseil d'orientation bu programme euh, de formation école entreprise nekk euh, ci ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion bi nga xamante ne sunu kilifa ministre Dame Diop moo ko jiite. waaw ñëw pour teewal euh, sunu kilifa monsieur le ministre Dame Diop. bi nga xamante ne moom dafa bokkoon ci parrain yi euh, moom it tey moom it mu am yet beneen euh, jotaay ju mel nii boo xamante ne daf caa dem moom it njiiti réew mi yebal ko fa moom it comme que nee na euh, mënut a teew fii moo tax mu yebal ñu ma ñëw teew fii man ak chef de cabinet am Khalil Sow ak assistant am muy madame Bass. jàngat ci gis-gis ci loolu. waaw euh, doona rafetlu vraiment kàddu yi fi jëpp si conférence bi ak thème bi tamit mooy si wàllum polygamie am na lépp lu bëree bëri li nga xamante ne ñun góor ñi surtout xamuñu ko woon si wàllum naka ngay yore ñaari soxna ndax euh, sëy euh, sunu borom moom moo ne ne nay takk ay soxna. naam suñ takkee soxna nan lañ ko war a yoree tamit euh, lu bëri jàngat nañ ko fi ndax am na nga xamante ne ay wàllum ay xamuñu ko woon tey jii oustaz euh, Alioune Sall gindi nañu si loolu. donc dafa am euh, jàngat nañ si bu baax a baax suñu wàllu diine jàngat nañ si bu baax a baax te suñu wàllu aada donc vraiment conférence bu am solo la bu xamante ne bu riche. vraiment rëccuwun daal li nga xamante ne sunu kilifa yabal nañu fi daal. xam waaw xam nga loolu noonu gis euh, nga comme li may wax rek dina mbirum diine moom lépp loo si def rek euh, du neen yenn saa yi ku mën a toog di seetaan match football. ñu bëri xam nañu ma si wàllum football fu mën a toog si match football di si toog quatre-vingt-dix minutes cent vingt minutes di siy toog wala nga toog si benn ay concert boo xamante ne ay samay rakk yi waa express ñoo ngi koy def nga mën see toog ba mu jeex rawatina nag li nga xamante ne su waxum sunu borom la mbirum sunu borom mooy diine donc lii du question dara dañ cee war a toog euh, te jaadu na tamit ñu toog si ba mu jeex tàkk te rëccu ñu teg ko tamit su fekkoon tamit conférence bi dem na ba après dog sax su neexee sunu borom dinañ si toog. waaw di leen sant di sant ñëpp euh, di sant euh, soxna yi nga xamante ne ñoom ñoo def conférence bi nga xamante ne ñoom ñoo ngi bàyyeekoo ba ci Kédougou ñëw defar conférence bi nii euh, nga xamante ne tànn kenn ka nga xamante ne mooy doomu Bawol tamit mu sunu ministre Dame Diop def ko si pare yi donc lu lu rëy la Kédougou ko Bawol dafa sori. di sant tamit euh, yéen tamit taskati xibaar yi donc euh, yéen amuñu seen fay sax lu may wax rek chaque jour ndax euh, ku si siw si yéen la ku am promotion yéen la donc il faut ñu leen di delloo njëkk saa su ne leen ñaanal tamit kër yi ngeen nekk tamit sunu borom gën koo dooleel waa évidence waa wasaare yéen ñëpp nii ñu ngi leen di ñaanal tamit sunu borom tamit gën leen a dëgëral bu baax a baax. maison de presse bi gën a yaatu pourquoi pas muy am télévision boo xamante ne télévision numérique yu yaatu yaatu daal ba ñëpp di xam si si àddina bi si barki Seydina Mohamed si barki weeru koor gi tamit barki fukki fan ak juróom yi mujj tamit si koor gi tamit jërë ngeen jëf. Ah, xam nga chaque année dañuy tàmm euh, ñun waa Kédougou euh, bi mooy suñu troisième édition organiser li nga xamante ne moom mooy conférence religieuse ndax ba ñuy soog a euh, tàmbali li nga xamante moom mooy amicale bi. dafa tombeek weeru koor donc suñu première activité conférence religieuse lañ def boobu ba tey euh, voilà suñu suñu suñu activité yëpp moom la ñuy def chaque année euh, koor weeru koor ñëwee rek li ñuy njëkk a def mooy xool li nekk suñu kees génnee ko def social def suñu conférence religieuse dajale doomu Kédougou yëpp ñu nekk benn voilà. waaw thème conférence bi mooy euh, euh, les les les inconvénients hein les les les euh, les inconvénients de de polygamie voilà les avantages et inconvénients de polygamie alors mu doon thème boo xamante ne tout le temps chaque jour que jëfee ñun dañ ko dund seen biir kër yi mu bëri xëy na ñoo xamante ne si polygame famille polygame lañ nekk ñu ne pourquoi pas duñu wax ak ak yelleef li nga xamante mooy polygamie voilà. actualité. Mhm. message bi ñu war a jàllale rek mooy euh, jigéen ñi nañ xam ne ne bokk borom kër bokk wërsëg rek la donc euh, souvent dañuy gis ne ne jigéen ñi ñoo ngi xëppante acide ñoo ngi xëppante ndox ñoo ngi defante euh, lu ñaaw et tout temps kan moo ñu koy teg góor ñi ñoo ñu koy teg ñu bañ a nangu loolu. ñu bañ a nangu ko góor ñi di tax ñuy ërt ñuy ërtal suñu moromu jigéen di ko teg métital di ko teg lu ñaaw di ko waxal lu ñaaw juste parce que lan da ngeen a bokk wërsëg te bu ñu fàtte ne aussi njaboot gi suñu njaboot la ndax deret bi xas na jaxasoo ba pare euh, doomu première femme ak deuxième femme bi liñ bëgg a wane que ne euh, ya suñu yaay yi même bu ñu xeexee bu ñu euh, xiiroowee bu ñu ŋaañoowee seen mbiir ñun doom yi ñun nañu fexee nekk benn message bu ñu bëgg a lancer mooy uniquement que ñun jigéen ñi ba ñu nangu bu ñu nangu euh, teg benn fitna su suñu moromu jigéen donte ay wujju lañu donte ay wujju lañu. gis mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. waaw sentiment de fierté ah parce que gis ngeen ne suba si fii dafa feesoon dell euh, macha allah ñu toog xar euh, oustaz Aliou Sall chaque année nii la daaw aussi euh, dafa feesoon ba nit ñi amuñu woon fu ñu dugg fu ñu fu ñu toog amuñu woon fu ñu dugg on est été obligé na invité yoo xamante ne amuñu woon accès si biir salle bi parce que dafa feesoon ba ëpp cette année si alhamdulilah aussi mi ngi nii fees na et puis oustaz Sall ñëw na jàngal nañu jokk na dara si suñu diini si suñu xam-xam mu doon loo xamante ne sentiment de fierté la ndax ne serait-ce que même bu dee fukki doomu Kédougou la nga boole leen ci benn bërëb ñoo xamante ne gëjoon nañoo gisante ay ati at ñoo xamante ne mosuñu woon gisante tey nga may leen opportunité ñuy kaf jëree bokk islam bi donc je di que euh, euh, l'objectif a été déjà atteint donc objectif bi atteindre nañ ko ñun doomu Kédougou yi nekk nañu benn bu njëkk ba xëy na loolu ñu doon jafe mais actuellement alhamdulilah fi mu ne nii ñoo ngi sant yàlla nekk nañu benn wala ñoo ngi kaf jëree bokk ndey bokk baay et puis euh, voilà ñoo ngi ñoo ngi sant yàlla daal question bu waaw xam nga ne benn organisation yombut te Sénégal la ñu nekk tant que defoo activité doo gis ku ñëw donc yow yaay commencé ñeneen ñi soog a ñëw ñun dañuy faral di def suñu kees tout le temps day am wéccet boo xamante ne dañuy préparer genre événement yu mel nii moo tax duñu xaar kenn ku ñu nag boo ñu ci fekk seen ñu jël ndax vraiment boo gisee réussite euh, amicale bi réussite conférence bi tey certes ñu bari jàpp nañ ci ah suñu parents yi jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ndax gis ngeen sànq ba léegi ku ñëw mi ngi gàddu enveloppe am bu diis ñoo jox ñu ko sant yàlla la te yooyu enveloppe yëpp ñu ko dajalee ba pare la ñuy njëkk a def mooy social chaque année dañuy def ne ne bu ñu conférencé ba pare lépp lu ñu indil lépp lañuy dajale yóbbu ko Kédougou jëndee ko ceeb jëndee ko diwlin jëndee ko suukar jëndee ko denrées de première nécessité yi jox ko ñi nga xamante ñoom ñoo ko yellool dañuy dem ba au fin fond de Kédougou dañuy dem ba Salémata Saraya Salémata kii euh, Fongolim bi dem distribuer ko jox ko imam yi jox ko délégué de quartier yi jox ko nécessité yi nga xamante ñoom ñoo nekk biir Kédougou et je pense bien que kenn ku si nekk sa dërëm bi nga fi dugal doo ko rëccu parce que fi muy dem la chaque fois bu ñu amee conférence rek waa Kédougou ñuy xaar ñi ci bëri bokk ñoo ngi xaar si acte sociale boobu da ngay gis koo xamante ne euh, boo ko joxee ravitaillement bi boo ko joxee saaku ceeb diwlin suukar dalay ñaanal bay jooy parce que il se dit que démb rek kilo ceeb bi mu sóoree da koo leboon donc vraiment euh, xam nañ suñu doom euh, suñu njaboot ñu nekk Kédougou la ñuy dund moo tax ñuy def suñu kentu lay kattan pour chaque fois ñi mën di def social ndax vous n'êtes pas sans savoir Kédougou tey bokk na si deuxième région boo xamante ne moo gën a pauvre si Sénégal ANSD wax na ko kon ñun doomu Kédougou yi fi nekk lu ñu mën mooy chaque fois ñu xool gestu ñi nga xamante ne ñoom la ñu bàyyi ginnaaw suñu yaay ñoo fa nekk suñu mag ñoo fa nekk suñu rakk ñoo fa nekk wan leen wu ñu leen benn yoon ñoo ngi fii xëy na naam mais suñu xel a ngi si ñoom voilà